bokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi seen deuxième numéro émission découverte jeune talent tey ñoo ngi si marché Gueule Tapée ñu dellu si fi wàll bi seet si keneen koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm si wàllu technologie dañ koy bàyyi rek mu xamale ak askan wi. nekk fii ci marché Gueule Tapée fii Fatou dëgg yàlla yàlla nañu si daal yaakaar naa ne Sénégal si ñëpp si mbirum téléphone moom naa ci si ñëpp defal dëgg yàlla yàlla dëgg yàlla mu ngi si dund yàlla may xam-xam bu bëree bëri nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp di leen bàyyi di Malick est-ce que mën nga ñu xam fan nga jàngee fan nga jàngee métier bi. métier bi maa ngi ko jàngee Kaolack sama benn doomu baay bu ñuy wax Modou Diop moo ñu ko jàngal xam naa ne dama ciy dugg daal ay 93 93 93 maa ci dugg ndax bi sama papa gaañoo boobu maa ngi jàng alxuraan ba léegi 92 93 ci laa bàyyi jàng commencé métier bi dama ko commencé dëgg yàlla yàlla dafa am lu mu yàlla ubbi woon ma ci donc damaa nekkoon nit koo xam ne ku nangu woon a jàng métier ku nangu woon a am patron nangu woon a am kilifa euh, damay jàng métier mbaa ña ma fa nekk noonu mën naa ne ñoom ñëpp maa leen raw maa li ma doon jàngee métier ak ni ma ni ma ko bëggee woon ni woon na gis ku ko mel demoon naa ba maa mu doon yilif atelier ba euh, bàyyee ma place bi bàyyee ma lépp ndax tellement ni ma ci mel ak ni ma ñu euh, ma ko dimbalee doon ko toppatoo su ma saana tukki danaan ñëw ma compté li ma liggéey si xaalis yëpp da ko lii lii la lii lii la lii lii la lii lii la ba lépp mat ma tegal ko balaa jàngi métier ba ma koy jógee maa ngi ko jógee 2001 euh, ba 2001 maa ngi foofu ci atelier ba dam naa ñëw Dakar di dem ñëw Dakar di dem ñëw Dakar dem bu mujj gi ci laa ñëw fii place bi ci marché bi fii ci marché bi ndax 2001 ba léegi maa liggéey mooy rajo rajo laa njëkk liggéey boo si jógee day liggéey télé dañ defal télé bi téléphone bi ñëwee nga euh, gis nit ñi nekk ci man it xam naa ne yàlla ba bindee xam-xam it xamalu ko keneen nit ne bu kii xamee keneen du ko xam loolu laa gëm dama gëm ne lépp lu bëgg a xam dama koy xam kon yàlla moo bind xam-xam yi euh, ko yemalewul kenn fenn kon man du ma yem fenn man lu ma bëgg xam dama koy xam. ñu bëri ñu bëri ñu ngi ma koy ñu ngi ma koy rapproché naa ma dañoo mooy place bu rafet bu luxe. waaw loolu la nit ñi gëm te loolu moo man man bu ma gëm bu gars yi man samay laa leen di man sama publicité du nekk damay dem wax ni ki mën naa li naa li man ñi ma xam ñëpp képp ku ma si liggéeyal di nga indi keneen. man sama philosophie loolu la képp koo xam ne liggéeyal naa la da ngay jëli jëriñ ndax dina wóor na li ma la defal yàgg ngaa dox na doo gis loolu defal. mais est bu baax lépp loo si fii nii nga gis ñu bëri benn boo xam ne am na danger bépp boo xam ne am na danger dama ko amul benn boo xamee dina am benn coupure kii wala dina am benn danger boo xam ne am na ci fil yi fil boo fi gis rek filu 3 volt la 3 volt bu def kenn dara mais filu 220 yi amul benn boo xamee di nga ko gis wala dina def benn effet wala da nga gis yaakaar ne dina ëllëg ndax électrique euh, jaar naa ci jaar naa ci ndax électrique courant jaar naa ci xam naa ko su ma ko bëggee def du ma ko sant kenn xam naa li ciy danger xam naa li ci nekkul danger kon nit ki doo xam li ngay xam ba pare di ko di ko bàyyi mu lay lor doo ko bàyyi mu lor la yaa yaa yaa lor nga sa bopp kon loolu nit kenn du ko def dem jël sama xam bu ñu gis safara wala ngay gaañ sa bopp loolu du ma ko def te man su may wàccee damay débranché bépp courant boo xam ne day fonctionné ci place bi dootul ñëwati te dizaine d'heure wala courant bi yem moo tax man ragal naa ne yàlla nag moom moo mooy léeg-léeg mooy dogal waaye nag gëm naa ne gëm naa ne loolu du walal ndax préparé naa ko sóoraale naa ko ba lépp luy génnee courant 220 bokk ñu suñu bokk ak suñu ñuy nekk dama ko dugal